lu mu doon daw moom bu gëmooy nit ñi ne moom yëgul procès bi ma ñëwul xam nga deew lu ko neex ay avocat am ko lu ñu def yow bu ñu la sa avocat ni ñu ko yëgee ba ñëw tribunal ma ne gars yi ku yëgul ne dañ lay atte kenn owu la tribunal lu tax nga ab juróomi avocat ñëpp taxaw naan ko. kon boog dañu lay wone tey li ñëpp foog du am mooy ñaf ci kaso bi Ousmane Sonko am na mooy ñaari at yoo xam ne da ko war a tëdd du sursis de ñaari at yu mat sëkk yu war a nalaw hôtel zéro étoile bi war a bës. ko ñaari at. waaw loolu mooy nee nañ corruption de la jeunesse mooy abusé ci benn xale boo xam ne dafa laa ragal nga di ko def lu noonu waaye nee nañ xëy na loolu yeggul ci viol pour ñoom pour ñun viol la pour ñun ñu ne ñu doon nekk minimum dix ans wala vingt ans wala quinze ans donc ñun kontaan nañ ne kontaan bi des na ndax ba ñu doon ba ñu doon kontaan. ñu jox ñu li ñu laaj yëpp mooy wane ni ñu yeggee ci ñun lu tax ñu war a tëj Ousmane Sonko fukki at wala ñaar fukki at ndax yoon la wax waaye nag dañ koy indi ci corruption de la jeunesse mooy yegg ci xale boo xam ne ci xale waayam ci ñàkk dooleem nga abusé ba mën a tëdd moom kon loolu kon la aj Sarr waxoon en partie nangul nañ ko ko. loolu indi ñaari at yi nga xam ni Ousmane Sonko war na ko tëdd ci kaso bi. satisfaction bi total kon suñu mbégte am nañu mbégte bu rëy. mais waaye mbégte bi. mais ci wàllum koppar may ma may ma tey mbégte bu rëy mbégte bu rëy mooy Ousmane Sonko dafa gëm la woon Sénégal dafa am doole ba bi ko war a au tribunal dëkk bi di bëgg a muy yàq dëkk bi di taalu dëkk bi bëgg a jaay doole juge yi di leen saaga. moom Ousmane Sonko ba ñëpp demoon nañ ba foog ni kenn ñemewul àtte Ousmane Sonko mu sell mi tey tribunal wala na ni Ousmane Sonko sellul na tëj na ko ñaari at yoo xam dafa ne ko am na loo seeg ak xale bu jigéen boo xam ni danga nga ko jaay doole danga ko woon da nga influence nga ko woon a ah, mu ragal la nga am noo def ak moom kon dafa tëdd ñaari at kaso kon xam ngeen ni weddi wuñu seq na dara xale bi waaye viol dañ naan viol mooy loo xam ni xale bu jigéen bi d'accordu ci. lan waaye yoon nee na mu teg ko ñaari yu war a tëdd fii ci kaso bii jege bii ku ñu ne woon bu ko tëjee dëkk bi tàkk yoon am fit tëj mu war fay six cent mille francs amende ëlbatiku yëkkati ñaar fukki million ndong Ndeye Khady Ndiaye ñu jox ko ndàmpaay solidairement a ah, à Adjira bi Sarr kon ku deful dara doo tëdd ñaari at ku deful dara doo fay ñaar fukki million kon tey am nañ ndam lu rëy rëy waaye ndam li mën naa gën a rëy nag buñ ko ñëfoon fukki at buñ ko dóoroon fukki Ndeye Khady lan lañ ko daan ba pare waaw dañ comme décidé de viol comme décidé de viol mënuñu ko tëj loolu xam nga kese la. waaw moom mooy jël xale jigéen di leen di leen def la dul noonu. est-ce que di ñu xool ndax sur client sur client am na mbégte mais am na lu ko naqari li ko naqari mooy mu doon nekk kim jiñ ñu tëj ko fukki at ndax loolu loolu wax waaye bañ ko tëjee ñaari at du am mbégte bi mu yaakaaroon mais comme moom pongal la moo xam ne ñu bu dee ko ragal ci mi ñëpp foog nañ ne buñ ko tëjee. dëkk bi tàkk nañu kenn ñemewu koo tëj lu mu def rek day dem fee menacé oote ay meeting rassemblement gatsa gatsa pour ñëpp ragal ko waaye gatsa gatsa massa massa deux massa massa la. le droit a a di peut le droit a été dit selon le juge. mooy apprécier. ñun après on commente rek comme yow. Ousmane Sonko yi ne a bokk ci élection yi am nga loolu yàgg na depuis Mame Mbaye la bokkatul. depuis depuis li ko tëjoo ci Mame Mbaye Niang. ci la la bokkatul. bii bi da yokku rek. heure bu ko yoon bëggee rek heure bu neexee yoon jëli ko du ko dem kay tëdd jërëjëf merci d'accord mu ngi